gën ñoo gàtt ñoo tawféexi bi. comme si le président est à Bakel nous on doit pas à Bakel. c'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel. man dem waay man dem waay dama euh, on est à 14 kilomètres de Bakel. on est à 14 kilomètres de Bakel. On vient de nous demander d'arrêter le convoi parce que tout simplement, le, la hiérarchie leur a demandé de nous stopper. On ne sait pas encore le motif avancé. Ce qui est clair, c'est que nous, nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a les sinistrés qui sont à Bakel. Voilà, Bougane mi ngi dem au direct foo parle Bougane mi ngi dem parle bloqué Respectons ce cas, arrêtez-nous. Arrêtez-nous. S'il vous plaît. Non, non, non. Faut pas. Non, non. vous n'avez qu'à nous arrêter. Mais non, quand, quand, quand des ordres, quand des ordres sont, nous allons marcher sur Bakel. Arrêtez le convoi, même il a pas de marcher. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Si vous allez nous arrêter. pas. Non, on est des Sénégalais, on a, on a, on a la possibilité de marcher. Vous n'avez pas le droit de le bloquer. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez-le. Nous allons bloquer. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous devez laisser parler tranquillement. Il faut laisser le président. Nous allons laisser le président. Laissez le président. Nous n'avons pas de marcher. Nous allons marcher. Nous allons à Bakel, nous. Nous Arrêtez-nous. Da ngeen ñuy jàpp wala ngeen bàyyi. da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. Arrêtez-nous da ngeen arrêté Qu'est-ce qu'on en fait Arrêtez-nous Nous

On a déjà dépassé ça. Cette situation est derrière, est derrière nous. Chef, la situation est derrière nous. Cette situation est derrière nous. Cette C'est ça le pays, c'est ça ce que Sonko, c'est ce que Sonko Sonko combattait ça. Regardez, regardez, regardez. Regardez-moi, regardez. Regardez, regardez. Regardez. Regardez. Chef, laissez-le. Laissez-le. Arrête de le brutaliser. Chef, mais c'est quoi ça Mais Djamba oh eh, il sera tout à il sera tout à il sera tout à chef oh il sort tout à présent chef mais chef jàmbaar eh mais kii dama Non, non, non Vous n'avez pas le droit. Aucun droit. Vous n'avez pas le droit de la Vous n'avez pas le droit de la dictature. On pousse, on pousse. Pensar que eu vou ficar de medo. man tam Anta yow tamit nga fekkee li nga xamante ni moom bi ak arrestation Bougane Gueye Dany aujourd'hui xew tey dafa ñaaw je pense fekkee nañ ko ndaxte comme ni ko Thierno Bocoum waxee ñun dañoo jug jàpp ne ci suñu wareef ñu dem jàppale suñu mbokk sénégalais nekk ay sinistré diggante euh, Podor diggante maatam ba war a dugg fii ci Bakel ñu egg si ba fii. xool leen tourné leen ngeen filmé leen ñu ngi ni taxaw barrage la ñu def mais avant de nous barrer ils ont pris le soin et le temps de nous malmener et surtout pire encore ils ont arrêté l'un d'entre nous Bougane Gueye Dany c'est la coalition Sàmm Sa Kàddu ñun dañoo jàpp ne liy farata fi ñu toll nii mooy dem jàppale les sinistrés defuñu lu ñaaw defuñu lu bon waxuñu lu ñaaw nekkuñu fi pour yee fitna au contraire démb rek lañ ko wax nous nous sommes une opposition responsable mais ñoom force dañoo bëgg a indi coono ak li li ñuy wax daan kaay leen ñu cooki ci loolu la ñu bëgg a woo te lii moo koy wane c'est difficile parce que jàmm lañ bëgg ci Sénégal mais nag l'histoire retiendra que de façon très malheureuse ils sont en train de piétiner la démocratie de notre pays. Et on s'est battu, il n'y a même pas longtemps de cela, il y a sept mois, il y a huit mois, il un an de cela. On s'est battu pour jëlee fii lépp loo xamante ne mënoon na salfaañe suñu démocratie réew man de amoon naa yaakaar ne lu mel nii doot ñu ko dundati surtout excuse bi mu joxe liñ ñu wax ñun ñu koo dégg ne parce que le président de la république mi ngi Bakel ñun ñoo yegg Bakel mais bu doon loolu président la république Dakar la dëkk ñi ngi dëkk Ndakaaru ak ñoom donc lu xel mënut a nangu la vraiment ñi ngi ñaawlu lii fi xew et nous espérons qu'ils vont revenir à la raison. Madame Diack, que Mais nous ne pouvons rien faire d'autre à part nous rester ici et attendre, appeler les personnes qu'il faut appeler, essayer de les amener à la raison. Parce que on ne peut pas ne pas aller à Bakel. jógewuñu Ndakaaru 4 heures du matin 900 kilomètres ñëw ba fii buntu Bakel à 14 kilomètres de Bakel ñu ne ñu doo dugg ñu dañu ñëw indaale suñuy denrée indaale loo xamante ni gars yi dañ ko soxla indaale ay eau de javel indaale ay saaku cest dire que dañu ñëw pour jàppale leen dañu ñëw pour nekk seen wet mais on se battra pour arriver quand même à à à Bakel on ne peut pas retourner comme ça ils ont besoin de nous ils ont besoin de nous et ils doivent libérer Bougane

libérez, libérez, libérez, libérez, libérez